d'où l'on a maintenu des exemples à montrer dans un pays qui se dit à 99 voire 95 de musulmans et 5 de chrétiens en tout cas il fi a ñëpp am lu ñu gëm. donc loolu du exemple y a ni yaakaar naa ne war na cee mën jóg leneen li moom mooy xew-xew bi ci week on a montré des images futiles aussi je le rappelle la euh, mise en scène ay xale yu jigéen yuy xeex ci plateau beneen bi je sais pas de quelle mission il est investi, ce qui <laughs> était là pour insulter des journalistes, mm. pour mettre tout le monde dans le même pot, pour insulter de père de mère, peut-être qu'ils sont entrés dans cette corporation par conviction. Euh, je me dis, pour une mission qui a été enregistrée, moi je trouve anormal que l'on puisse laisser quelqu'un débiter de telles insanités à l'encontre donc des Sénégalais fut-il mm. même des citoyens lambda mm. lord ça je le dénonce dafa gis nañ ko ci gis nañ ko ci dernièrement ci week-end bi ci weer wi la ay ay tolluwaay daal yoo xamante ni ci chaîne de télévision yi ñu koy wane muy euh, télévision muy internet bi nekkul loo xamante nii dina rafetal deru déjà ñi ci dugg parce que bi ñuy dugg ci métier mi les rêve la woon boo xam ne c'est un idéal bu ñu gisoon moom ñu tax a dugg euh, yaakaar naa ne ñàkkul ne gis nga image ay plateau ay ñaari xale jigéen yoo xamante ne mooy xaw ma ay animatrice xaw ma lan lañu ñuy beneen bi moom mooy ca ay bés bële ñu weesu gis nañ fi couple boo xamante ni ku góor ki en tout dafa direct en live mu wane li nga xamante ni mooy infidélité maanaam na mës na trompé jabaram bu fekkee sax mise en scène la pour jaay loolu dul loo xamante ni war a mën leneen nag moom mooy euh, waajooju Ousin je pense bien la tudd bërën bëri ko moom saaga nit ñi la def carrément et on laisse comme ça et on nit ñi bàyyi on est tous contents quoi on est tous comptables de, de, de, ce que font les gens dans les médias. Juste pour rappeler que c'était une émission enregistrée. Une émission enregistrée. dire mon Si c'est comme ça qu'on doit avoir le buzz, moi j'ai vraiment peur pour ce pays-là. J'ai vraiment peur parce que buzz, am na loo xam ne jarul ma ko man su ma invité nit ci plateau bàyyi ko muy saaga nit man je préfère quitter ce plateau-là. man ce ne sont pas loo conviction yu ma gëm taxul bu may dugg ci métier bi loolu tax ma cee dugg. waxante na nag loo rawatina loo xamante ni da ngay invité nit ki mu toog nga enregistré émission mu saaga nit.

teg ci lu ñaaw journaliste yi tey journaliste yi ñoo lay jox xibaar yi nga xam mooy tax nga xam ne xew si réew et ko doon présenté même bu fekk lu journaliste animateur animateur la wala animatrice la ci corps bi la bokk ah, yaakaar naa ni warul même monteur ba warul woon a bàyyi loolu jàll te nag léegi xam nga li ma sam waxoon rek ni ma ko yóbbu wuti xam-xam télévision ak rajo yi ñu ngi ci ndox mi di ñëw bi yóbbu ko wuti xam-xam nit noo bi te rajo di wut ku ko waxal du ko am parce que xam borom xam-xam moo dootul bari mm-hmm. yi bari na parce que internet bi léegi moom comme télécentre ni meloon la mel léegi léegi ay waxkat rek lu neex waaye wax ku gën a wax lu rëy yow yaa ëpp buzz. surtout buzz bu salte mooy lan jël ma waxoon naa ko fi xale bi su fekkee dafa feebar nañ ko dem faji su fekkee dafa réew nan ko def comme ni ñuy def ku réew mais ñu koy bay bayal nii di ko bay bayal nii di ko bay bayal ni ëllëg dina fa wax leneen nit nag tamit am na loo xam ne bokkul ci ñun ñu dañu amoon ay valeurs yu riche muy yoo xam ne kenn du ko wax am na loo xam doo ko mës a wax waaye léegi nag li xew léegi ah. am na loo xam ne na xëy na nguur gi mën na cee jóg bu ci jógee comme CNRA bu ci jógee am na ki li muy dégg ma ne noppi garmi laa yor billaay barke Serigne Touba li ngeen yenn yoo xam te da naan sax doo ci sax revenir mais soo ci hmm. revenir sax mun nañ yaakaar ne lu normal lu continuer di ko def di ko defaat xam nga sall bi nga wax na ko léegi waaw xam nga su fekkante da nga enregistré émission mu am xale boo xamante ne xaw ma wér na xaw ma wérul xaw ma réew na xaw ma réewul xaw ma xamadi na xaw ma xamadiwul tiim lu toll noonu noonu te wax dafa saaga journaliste yi da ngeen mën a nangam teg si nangam te journaliste yi ñu ko ci mat papa nekk ci ñu ko ci mat yaay nekk ci ñoo xamante bii bi ñoo ko ëpp éthique ëpp ko déontologie ëpp ko lépp gën koo yiw muy taxaw noonu di leen saaga am na ñoo xam si dafa rafetul nga xamante ne bii nii ñoom ñoo présenté loolu ñoom ñoo waroon a à leur niveau ne lii kat comme du jàll ñu bañ koo jàllale parce que loolu du yëfu du yëfu yiw du yëfu yabaate du yëfu du yëfu du yëfu bëgg buzz su la taxee ba ngay def yenn affaires yi franchement di nga dem ba buzz boobu dina la indil jël problème il faut qu'on respecte les gens lu ñuy teg ci télé bi lu lu nit ki su ko seetaanee daf ci war a am leen lu mu ci war a jëlee la mais weer nit ki wax vie privée nekk di ci def yoo xamante ne bii ni amul njëriñ je pense que ni loolu war nañ ko jéem a bàyyi et nag kaay moo leen affaire xam nga dafi garaaw fii hmm. man dama jàpp ni Sénégal lan la ñuy def mooy la promotion des médiocres ku la fi hmm. dàq wax lu mauvais ku la fi dàq def lu bon moom la ñuy di tàccu moom la ñuy di àndal et ça c'est pas bien il faudrait vraiment qu'on arrête ces genres de choses et nag encore une fois ñii nga xamante ni ñom ñoy dolel comme kérok wax nañ ko fi man dama japp ni euh, euh, Ouzin war na xoolaat bopam parce que xalé la et dafa nek ci métier bi war na xool naka la ko ñi diko ko encadrer encadré ba muy def yëfu nit ku yiw muy def yëfu nit ku nit ku tey muy def yëfu nit ku yaru ndax teew tudd nañ la temps yi passé nga def ju kenn xamul si yëfu jigéen yooyu waxatuñ amoon dara loo ciy tegaat taxaw naa da ngay saaga ay ñoo xamante ne ñoom ñoo la mag ñoom ñoo la mun nañ la jur mun nañ laa nekk sa nijaay wala sa mag ngay taxaw di saaga ñii di ko seetaan muy dem il faut arrêter ce genre de truc. dafa am loo ciy sànni. waaw dafa am benn citation bu ma bëgg a rek <clears throat> mooy fii waa ji doon waxee les réseaux sociaux à la place de réseaux sociaux la laay jël dans sa globalité ben ben média bi parce que émission bi nga xamante ni moom la ko waxee boo xoolee turu émission bi rek ci comprendre concept bi émission bi 100 buzz ce qui les intéresse c'est pas nit ki